di sant bu baax di dellu santaat Cheikh Abdou bu baax a baax di gërëm ñëpp te di ko massawu ci coono yi yaakaar naa ni comme ni ko sunu mbokk mi waxee Kumba Sarr nekk sëñ Modou Lo ko fi foofu laay waxe kon mën naa bañ a gudd waaye dañ doon wax ne ñun responsable Cheikh Abdou ak responsable Touba xam nga làmb daj dañ doon làmb te daj nañ Cheikh Abdou lañ daj ndax mën naa ni li ma sonn ci parti bi li kaneen sonn ci parti bi man ba ma làmbee laa daj ci Cheikh Abdou laa ko daje ci Seex Abdu la ko daje mën naa ne jigéen ju ne mën naa jooyal moroomam waaye yaakaar naa ne bi ni làmb bi ndajee moom la de ndax li ma xam te xam ko mooy muy saam muy olom nga muy mbàkke bawal muy tindoo di fu mu te manti doon fépp fu fa am responsable xam na ne Cheikh Abdou mii liggéey na loo xam ne ci lii nga xam ne fi la ko président Macky Sall teg liggéey na fi liggéey bu rëy kon liggéey boobu nañ ko ko sante bu baax te gërëme ko ko bu baax comme ni ko sëñ Modou Lo waxee sëriñ bi faw mu genné lan la tax mu sedd motax ñi sen seen xol da sedd ñu bëgg feñal woné wone seen mbégte bi nga xamanteni ni nekk ci seen xol yi. bi may fu nekk nak jaar na fa mais nak si Abdou and na ma ak moom fan yi and na ma ak gis ci mom dëgg gis ci momit lum la wax du limu man rek la lay wax soko waxé lam man la lay wax lu mënu mënut du ko wax té lool moy politique bu baax. señ bi ma dila xamal né soko ko ak soko yegut ñi and ak yow siggi nañu say responsable yi mbollem jigen ñen andal nga xana ño top sa ginnaaw señ bi mbacke siggi nañu parce que nga ñew ci langue politique gi dik def fi lu kenn defut wax fi lu kenn waxut indi fi lu kenn wut politique bi mu indi moy politique bo xamantene ne politique sincérité bo xamne deug mo koy lal señ bi loko wax lum du man danaan la nangam ji mënuma yooyu foo dem defaat déggee lu mën a la waat na lu mu ne danaa ko def sëñ bi dana ko def loolu mooy politique gars yi dañuy def politique sain mais si Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma moom du politique sain politique développement la. kàddu yi cant yooyu nag Mbacké dañ koy njëkkee si yow ñun ndaw ñi ñi nga xam ne yaa ngi ñu tuddee jàmbaar jàmbaar yooyu ci ni nga ko tënkee rek bu ñu ko doon tekki ci wolof mooy ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci kanam. ngir liggéey pour réélire le président Macky Sall japp naa li nga ñu tuddoon jàmbaar yooyu tey ji nax sayut ñu la ciy sant bu baax Mbàkke ndax bi ñu jubee campagne bi ñun ndaw ñi dañoo dajaloo nekkat waruñoo toog di seetaan war nañoo am beneen apport apport boobu nag mooy ñu définir suñ programme boo xam ne moom la ñuy suivre bi ñu définir suñ programme bi ñu la ko joxee nga fullaal ko daal di koy valider. li am solo mooy man dama jàpp ne le président Macky Sall bu amoon ñett ñu mel ne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma li ko naqari Touba dina saafaraw li waral loolu mooy depuis bi mu ñëwee ci langue politique gi muy ci législative bi dafa yokk électorat bi fii ci Touba ñu ne déet na waaye mu ñëw ci élection présidentielle yi daal di làbbali daal di koy yokkaat kon sëñ bi gàcce nga laama li la waroon sa diggante ak président Macky Sall def nga ko ba mat sëkk. ànd nga ak le président Macky Sall ànd gor te gor boo dee ànd ak moom nag moomewul di laaj waaye ñun ñi nekk sa ginnaaw doon ay ndaw xam nañu ne yaa ngi sonn yaa ngi ciy def sa alal yaa ngi ciy def sa guddi yaa ngi ciy def sa bëccëg kon le président Macky Sall ngalawaay suñu kilifa gi dañoo bëgg nga dëgëral ko ci dëkk bi nga taxawal ko jox ko ndombal tànk loo xam ne dina mën a gën a yokk liggéeyam. dafa nekk euh, responsable boo xam ne daf ñu teg ci aw yoon. parce que dafa ñëwoon fekk ñu ay ñuy politique waaye bi mu ñëwee dafa sensé système politique bi ni mu ko sensé mooy daf ñoo xamal ne ndaw luy politique te dëkk Touba nii la war a politiquer te loolu lu am importance la ci dëkk bi parce que dëkk bi nekk na dëkk boo xam ne bokkut ak benn dëkk kon bépp ndaw bu fi nekk di politique it war naa am neneen noo xam noonu ngay politiquer te bi mu ñëwee ci loolu lañu la ñu ñoddi ci loolu la ñu teg ci loolu la ñu sant ndax ku ne xam na ne ku sonnu nga ci askan wi askan wi rek la ñor tey na Sénégal gépp xam ne Cheikh Abdou Bally li mu financé ci élection yi kenn xamul nu mu toll ci quartier yi nga xam si ni quartier périphérique yi nga xam si dañ ko soxla woon trop lu jëm ci ndox lu jëm ci xeet boo machine wal yi machine ñi nga xam njël jigéen ñi ñawee xeet boo xalaat Cheikh Abdou Bali andi na ko ci dëkk bi jox ko jigéen ñi financement yi DER côté bépp mu jóg taxaw te a toog këram tëju te du tee mu doon li mu doon waaye mu wàcci comme ni ko sëñ bi waxee léegi mat ci côté yëpp waaye wàcci maaseek askan wi ngir bëgg leen a dimbali. mais Darou Sow dafa nekk village bu làq boo xam ni sëñ Modou mbay mii xam na ko. xam naa ko de ñëw na fa la fa nekk ci population. bëriwul ci village yu nekk mu mel ni dañ ko fàtte woon sëñ Cheikh Abdou ñëw yeesalaat ko beesalaat ko ba ñëpp dëkk Daaru Sow sëñ Cheikh ñun dañoo yàgg ci politique depuis 2007 di di suivre booleem ñi nga xamante ni bii ne ñu ngi yëngu ci politique di ay responsable yow yàgg nañ laa bàyyi xel di gis li ngay liggéey ci dëkk bi ba yàlla boole ñu ak yow ñu ànd ak yow sans condition mais nga defal ñu loo xamante ni bii ne moo gënoon ñu lay teg ay sàtt naan ñu lii lañ bëgg parce que Darou Sow dañoo manqué woon ndox depuis jamonoy sëñ Saliou benn tuyau bu mu fa dugaloon ci jamonoy sëñ Saliou boobu dëkku cosaan ba kese moo fa nekkoon ñu dem ba taalibe sëñ Bamba yi ñëw dëkk si ak ñun ñàkk ndox lool ndox mi néew doole lool. parce que dañ ne ku yokk sa sa sa sa kii nu mu tudd ku yokk sa cere yokk sa ñeex kilifa gu nekk ci dëkk bi bind nañ ko leetar pour mu dimbali ñu ci loolu mu jafe lool keroog bi ñu yàlla boole ak Cheikh Abdou ñu dem toog ak moom wax ko ko lam ñu wax mooy def ne su nekkul woon lii may yëngu sax su ngeen ñëwee wax ma lu mel noonu danaa jël ci sama doole defal leen ko. saytu ko xam ne Touba pertut Touba pertut toog dugal nga ci sa loxo. ndax ñun caaxaan wuñu bu doon lool rek ñu tëdd suñu laal am nañ ñu lekk am nañ ñu naan ñu ngi sant Serigne Touba waaye nag laxasaayu bi nga laxasaayu ni nga déterminé woo ci fal président Macky Sall ñëpp ànd ak yow Mbacke ñu ne dañuy ñaan président wax dëgg yàlla am Touba soxna nañu jox la cër bu am importance ndax de soo la ko joxee di nga ko jàllale ci responsable jàllale ko ci base bi te yaakaar naa boobaa président li bëgg dina ko am. kon Serigne bi mel ni ñëpp war nañoo sant waaye man mii de war naa sant ndax bisu tey bii confirmation la ci lu ñu man ak yow ndax ba ñu yàlla dama ni la man de yàlla dafa dogal ma jóge ci parti ku nekk daje na ma ak moom ku nekk recevoir na ma ñu waxtaan waaye sa jëmm ji laa gis koo xamante principe yi nga gëm ak valeur yi nga xamante ni nga gëm méngoo na ak li nga xamante ni moom bëgg nga ma sama ànd man ak yow bala nga ci xam le 25 le 24 dafa jall le 25 ñew kon mu melni nga victoire bini. ni kon ñuy doli sant yalla baaxa baax te ba nga ci détermination ak engagement parce que da nga bokk ñun terrain bi dañuy dem ba minuit une heure du matin nga and ak ñun ci terrain bi ngir ak kon yi ma bëri na parti yoo xamante ni ci tuubaa gii nii responsable ya fa nekkoon am njariñ yëpp indi na leen pa APR gi defe naa man ñi may fekk fii ñi may déglu mën nañ ma seede ku fa am njariñ indi na la kon ku yokkul da ngaa wàññi 67000 voix yii ñuy wax nii damaa gëm ni barke sëriñ Bamba sa jëmm ji moo ko fi indi. nag nañ bàyyi xel ne Serigne Mourou Moussa dafa ko ne adduna bépp mën nga leen sol ci mel ne mbedd. ñu ne ko Mbàkke mu ne mbeddum teraanga lay doon ñu ko teraanga julli ak morom ñi mooy lan mu ne mooy ak yëg tey waa Daaru Sow yëg nañ seen bopp waa kër ñang yëg nañ seen bopp waa kër wele yëg nañ seen bopp waa Daaru Xudoos yëg seen bopp parce que kenn ku ci nekk ba nga waxee ña nga la engagé Cheikh Gueye mii nga xam ne kër Sonko la woon ànd ak mbokkamee jëmu wax na dëgg bañ ko fàqate dara desu fa keroog bi ñuy ànd mu daal la dem saa ma man xaw naa dagg mën ko daal mun ma sëñ bi fàqate koo xamante ni bi président Macky Sall di ñëw da ngaa yóbbu deux cent soixante di cas bi muy dem bi muy dem autour ila Touba nga yóbbu deux cent soixante dix cas tey boo génnee fii li fi teew ab ab doonu soq benn doom la ci li tay fii. li ci topp nag sëriñ bi gàcce ngalama ndax caabi day buntu day am caabi kero bi nga xamante ni da nga ni da ngay dugg ci campagne da nga da ngay dem ci sa baay bu baax ba sëriñ Ahmadul Maxtaar yàlla na fi yàgg. bala maa def dara damay dem ba ci moom ba jox ko ndigal wax ko li ma bëgg mu defaloon bi nga demee ñun ñuy toog nan am na loo xam ne waxi biir la am na loo xam ne waxi biti la waaye waxi biti la mooy foo war a dem na nga fa dem ko war a na nga ko sax ndax dëkk bépp say mbokk la te bu ne dëkk bépp dem ci Sëriñ Cheikh Awa Balla dem soxna Bali mii di ko jur kon xam na ni mbokkum Tuubaa gépp bu ñu ko waxee loolu la su ñu demee ci Daaru solo slogan sëñ bi xam nga mooy lan Ila Touba 416 milliards waye buñ day wax benen slogan bi gëna a rëy te maam def ko moy saxar gi nga xamanteni mo moo Njurbel ba agsi kon aw yoon jaxalu len te xam nga ni aw yoon amna ci rom ab développement bis bi nga xamanteni dang ko japp suba lañuy fété jumaay Serigne Touba ji gëna mak muy 4 mars tay bu fekkon ci sa waajur def ko lolou du mën kon li ni sante mbolom na ngeen xam ni ku mu jox loxo ak ku mu joxul loxo fu mu egg ak fu mu yegul limu bëgg moy commencé wat benen liggéey bo xé day bees tak parti président de la République pour défendre le de Touba. Si vous avez fait ce que vous pour le président de la République, Amdam. Si nous avons 30% de Touba, si vous avez estimé 25 ou 20%, nous avons 30% da ngay dem ci ay centre de vote yo xamni APR mënu fo wona am sax 1000 voix day dem ba 2000 environ 3000 combat bi nak dafa donon lo xamni ni combat ben nit ndax budé dee nek at di def porte à porte visite de proximité nekkoon ci ay liggéey yu am solo ñu dem ba ben moment ñu ni dañoo laaj pour am ndam yaakaar naa.

pour président de la république ñi ngi leen di sant parce que ay sénégalais lañ te président de la république du liggéey mukk di ci génn Touba parce que su weesoo département de Dakar département de Pikine département de Mbacké moo ëpp population te Touba mooy xol bi ndax am na ci 81 vingt un pour cent te bépp liggéey bu mu liggéey fii la koy tàmbulee taalibe sëriñ bi la. wax na ko jëf na ko responsable yi nga xam ne nii séq na ak ñoom te suñu kilifa gii toog di Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma ñu man ko cee jiital la mu war a def lépp def na ko ña àndoon ak moom ñëpp voté nañ pour pérésident de la république